asalaamaaleykum dal leen ak jàmm Cheikh Bara Ndiaye gannaaw ba nga xamee ne nag daal di woon nañ koy fekk këram daal di koy yóbbu dugal ko si oto police moom Cheikh Bara nag mbir ya ma ngay gën a doy waar ndax kat nag moom question yoo xam ne daal posé nañ ko ko fële sa ba moom Cheikh Bara Ndiaye daal amul benn question boo xam ne daal di na koy tontu. lu ni mel nag tax na moom Cheikh Bara Ndiaye mu tëdd ñaari guddi si kaso ba nga xam ne nag fa lañ ko téye moom Cheikh Bara Ndiaye ginnaaw ñàkk répondre question yi nga xam ne daal euh, daal di nañ ko koy laaj beneen xibaar nag jëm si demuk kii di président Macky salo fële sa Touba lu mel nag taxoon ba am ñu ko doon yuuxu yuuxu yu méttee métti di ko sonkorisé Sonko Sonko Sonko lu ni mel nag tax ñi fatak kii di président Macky Sall di xamal ka ne nag waa Touba am nañu far ak Macky Sall waaye nag dañ du politique mbir mi ndax nag dañoo warmaal sëriñ bi te lu ni mel nag ñoom ña koy ñaalu lool di wax ka ne nag lépp politique képp la. ñu yabal dong la ñu di fay dem di karaki di président Macky Sall nek na lo xam ñom rafetlu wuñ ko lu mel nak bu amaatee ñom nak mën nañu tontu sebenen benen anam ndax nak ñom mën nañu ñew tamit yuuxu and ak nga xamne modi di président Macky Sall dari di politique mbir mi ñom da lu ni mel la ni ñaawlu lool lool si dem gi nga xamne nak nag di président Macky Sall demon nako fele fële Touba sété won Serigne Mountakha Mbacké Euh, ñu ko doon yuuxu daal an ko sonko sonko daal lu ni mel daal métti na ñi nga xam ne nag ñoo farak Macky Sall fële sa Touba